أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله أشهد أشهد أن محمد أن محمد رسول الله رسول الله أشهد أشهد أن لا إله أن لا إله إلا الله إلا الله أشهد أشهد أن محمد أن محمد رسول الله رسول الله أشهد أشهد أن لا إله أن لا إله الله إلا الله وأشهد وأشهد أن محمد أن محمد رسول الله رسول الله أشهد سيدنا أشهد أشهد أن تستموني أن لا إله الا الله بن بور بو بني جامو أن لا إله إكتن كن كنا دورادو إلا الله إلا الله كودو يالله سيكا ديوس دون جامو كن كدر يالله أنوس نوكانا دورا نينجين سكا ديوس yàlla rek la ñuy jaamu so deos la non non adora seede naa kama um tambeng dëggal naa um tambeng muhammad di kuma profeta muhammad mooy yonentab profeta di deos nangu aja? boo seeta ja boo seeta alhamdulillah allahu akbar képp ku bëgg am tuuru kinkimistitenel bonnoomi ñoofi kenn kenn ñu jox leen tur fajintis ɓe on songun sompeɗaɗu noomis noomidi muslimanu du ñàkk tam am koo xam ne moom tànn na tur i kudi seeɗu tamen hutural gin kuuji ba bonnoomi pasi kabeesa ɓe fala kuma amin ña noomi noomi kon kuuji yes logu ita comaɗu kinoomi en an tonga wos no yentarana religion d'islam di islam kuma kika no no fiansa kila kila tamben ka wos fiansa ano stu no stara no stara religion d'islam islam religion du prophète muhammad sallallahu alaihi wasallam ano stu fin de deus alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin gos kiki falta pano sidi no religion كما أشهد أن أشهد أن محمد أن محمد رسول الله رسول الله أشهد أشهد أن لا إله أن لا إله إلا الله إلا الله أشهد أشهد أن محمد أن محمد رسول الله رسول الله أشهد أشهد أن لا إله أن لا إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن محمد أن محمد رسول الله رسول الله أشهد سيدنا أشهد أشهد أن تستموني Allah la ilaha amul benn buur bu ñooy jaamu an la ilaha ikaten kinkina doradu ilallahu illallahu kudul yalla sika deos ñun jaamu kenn kudul yalla anos no kana dora ningin sika deos rek lañuy so deus ko nona non adora sedna kabogoron tustu muñu ja gëmna dum dum fiya tambeng deugal na dum seta tambeng ni muhammad dikuma profeta muhammad mooy que profeta de Deus Boceta já. Boceta. Alhamdulillah. Tudo que me alhamdulilah képp ku bëgg a eh, turu e pudi seeru também outro alguém kuuji ba bon noomi parce man tur sangam laa tànnoon ɓe fala kuma amin ya noomi noomi konkuuji yes loogu yita comaadu kii noomi an tonga wos no en tarana religion d' islam kuma kii kaano no fiyansa kila kila tamben kaa bos fiyansa anos tur nos tara nos tana religion d' islam religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam annonce note ne feena deos alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillah, rabbil alamin Gos, que que falta pano sibi no religion religião? A annonce no religião yi islam ora ka bo não no fasija e palavras falaram. Não falaria de como a annonce no no fia de Deus, no seta de el que Deus, cabagora não tem também, fiança de como profeta, Muhammad el que profeta. anto nodi bidi batarasa sin korari sedu sedu seis horas madrugada com duas horas com cinco horas com sete horas jamaatu filiale serigne di sedele yëre yi nga xam ne dugu tuub Islam, Islam si diine l'islam ndeysaan gis ngeen ñu leen jox yëre yi ñoom ñëpp ngi ak allah yi rafet na Alhamdulillah, rabbil alamin

أشهدوا أشهدوا أشهدوا أشهدوا أشهدوا أن لا إله أن لا إله إلا الله أشهدوا أشهدوا أن أن محمد عليكم باري الجميع ديال صديقي من يب زيار يب ñu ngi nii taxaw di waaj ku bi dugg ci diine lislaam ñu nii taxaw sëriñ baa ngi nii taxaw ñu war a tuubali ñoo ñu ñoo bëgg dugg ci diine lislaam bi ñu sant yàlla beneen yoon alhamdulilah ñu ngeen di gis ñëpp dañoo bëgg tuub dugg ci diine ji ñu ngi nii taxaw pour sëriñ bi war a tàmbali wax baati seede ñu ñoom ñu waxandoo ko ñu tuub dugg ci diine ji. Anton Lenta Buras. se o não. só sibubin bimistirasa itafalawnaw so pabu pañayagude rasa oro ko misi pañayagude rasa tak itafala kuma naw ikaturunde kabo mista kuna kun kuma protinde kabo misti kuna kun que pañayagude rasa utenklaba mon primero falar abu falabode os já. tudo que quem pega balina mundo que do abodos abe partinde awos largar je bula bula boca mas o fala deos boja nyeye boca tudo que eu vou falar com esse haram nunca nkana por mais na minha minha boca, língua também tambe nkana chigari papia mas mal u fasi mais bu entrar na água mas na bu nariz a falar com mancana tira fogo, mas nenhuma outro coisa que acabou Deus. Tudo que, é que Deus me só caminho não tira fogo nela. Né? O labarosto Tomás. Para falar Deus boa hoje, a mim cano jubi, mas nenhuma outro coisa se acabou. Como aqui acabou falando para faci, que lá só caminho na fascina. Né? Um cano jubi, mas nenhuma outro coisa acabou, camiste. <coughs> <coughs> <coughs> ulaba ulaba cabeça mas afala tudo que camin carga ba ki ka deus nkarga ndis karganta so deus kamin carga mi corazón. el son também kamin gostayel na nyakoroson kuzas música. tawabi al musica gosso al Quran na Que la ilaha illallah nkana wabi mas nada sikakila ulaba más pe o fala Deus a mim nci bariana para bater bem na kusas de brincadeira nci nta nta bai ba também pa miti outro gentes nta bai também para tomar outro coisa de alguém boa Deus um para já que coisas abo firma bo filande que solta ele. o fala Deus ali boa já já nunca pega nada nkafilatan nimko sika naabo deos tuudu kekum peega ba kikaabo mfercal jabos obu fala allahu akbar obu ley fatiha sibu puri utur sura uta pol mas ribadi ki fatiha sibu kapudil so fatiha bu pudi rasa keki islam tabali pekadoru Ora acabou sendo muçulmano, porque que cana bali pecador também, ora que cacete está muçulmano. Bom, então, macho com fêmea. Patudo faz sem cedeiro. Assim. Patudo faz em cedeiros. Com mondreta. Com mondreta. Mamá, mondreta. Mondreta. Mondreta. ñu ngi nuyu ñëpp dañoo gëm tuub ba même si trois cent personnes am na teg dëkk bi dañu koy gëm si a tuub sëriñ Ba ñu ngi ñu ko joxe loxo yi war a tuub ba seede yi sëriñ bi commencé macha allah. o rakka bo mati no mas como kuma pabia di kuma abobu kasi bisi de como kuma bufasi de algum coisa que umas na kon na kusa na, na religion di Islam. ora que abo entra na, na religion di Islam. Ita kontra di kuma abobu sta suma como o padido como tudo mal que abo para badi fazer na bu vida. a paturu que aqui grande grande Deus por Deus aquilo. Como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tá si pape cigadi matado kinke matal i fazizi coração itrala carne carne e cumel kuma kabagora ki ki fasibatan ki tarbajo ibi min tubi renta e entra na religião de islam mbo anton tubi kila ikuza muito bom kuma panos tudo não fala ashhadu assalamu alaikum wa rahmatullah mbokk jënati fi yàlla sa jëf ñu nuyu ñëpp di ziar ñëpp sëriñ baa ngi nii départ tey bisaaw si capital bi ñëw fii fi ñu ini yuñ ndum pour tuubal si jaami yàlla yi nga xam ne ñoo bëgg dugg si diine ji ñu nuyu dëkk bi lañ njëkkee

siinu sëriñ bi tuddee na ko Aliou Niass ki mooy Fernando Kumba sëriñ bi tuddee na ko Ibrahim Ibrahim Niass tuddee na ko Karim Niass sëriñ tuddee na ko Karim Niass jaase la tudd tuddee na ko Omar Omar ba jaase tudd sëriñ tuddee na ko Omar ki mooy Bidang Sangta Bak sëriñ tuddee na ko Abdurrahman Niass Abdourahman Niass kiltinu bida sëriñ bi tuddee na ma Cheikh Tidiane Niass Yes, mooy Cheikh Tidiane Niass sëriñ bi eh, kiltinu bida la tudd sëriñ bi tuddee na ma Cheikh Tidiane Niass mu ngi nii sëriñ bi Karim Niass Abdou Karim Niass masha Allah sëriñ baa ini nii toog Aïssa ini, mu ngi nii sëriñ Yes. santal sëñ bi sant nañ ko ñu sant Philippe Aïssa la tudd Philippe la sant léegi cent vingt neuf turam mooy Tafa foog na Tafa sëriñ bi tuddee na ko Ousmane Bouna Affan na Tafa sëriñ bi tuddee na ko Ousmane Bouna Affan Ousmane Niass sëriñ bi tuddee na ko Malick Niass sëriñ di di tuubal ñi nga ay Mar Marcelino Gomis la tudd serigne bi nako Babacar Niass jaasani yami serigne bi nako zubairu ko Zubairu Niass Zubairu Niass tuddee nañ ko Khadijatu Niass tuddee nañ Khadijatu Niass ni ni dafa tuub wa saana nañ ko Khadijatu Niass la tudd jamaatu fidiyaare sadaqin sëriñ baa ngi di séddale yëre ni nga xam ñoo tuub léegi dugg ci diine l'islam l'islam gis ngeen ñu ngi jox yére yi ñoom ñëpp ñu ngi ànd ak kontante ñu ngi am ñoo xam ne sol nañ seen yére yi macha allah rafet na trop alhamdulilah rabbil alamin ñëpp a ngi jigéen ñi ñu ngi séddale yére yi di oo kenn ku ne suñu ooyee su fekkee yoroo turu jullit sëriñ bi changé la sa tur jox la turu jullit macha allah.